bi ñu def ndaateel waaw ndaateel yàgg waaw léegi am fit ci gars yi laa ko gis sàcc bu am fit léegi yow jëlee fi jàmbur ba pare Lama Ndiaye damaa bëgg nga nuyul ma Ouzin Mbaye waaw Ouzin ñu ngi koy nuyu donte ko xamante wuñu nag waaye ñu ngi ñu ngi koy gis ci télé be yooyu pagaay mbay nag waaw pagaay ñu ngi koy nuyu waaye na ko na ko leer ni moom pagaay moomul xuran moomul naa bu mu ni moo ko créé léegi yow déedéet gars yi nañ liggéey pagaay mbay pagaay mbay moom moom ndaateel ah, yow nag xam nga sa bopp ni xaaral ma jël kii ba pare salaamaaleykum alors def leen def leen parce que euh, xam naa ni ñëpp ñu ngi bëgg a participer maa ngi leen di béggee bu baax a baax euh, nga ni pagaay mbay moomu ndaateel la. wala nga xoolal xoolal langal kañ lañ ko génne woon. Mhm. ndaateel la mi ngi soog a tàkk. Mhm. mais langal kañ lañ ko génne woon ca langal ci la ndaateel ne. kon pagaay mbay dafa sàcc daal maanaam sunu saway bi. non bari na. ñoom ñu ko génne ak kan kan moo sàccaat saway ah Sidi Diop génnewul xoolal ndaateel. Sidi Thiat na ko. ñoom ñëpp génn waar nañ ko waaye sant yàlla la loolu moom ak cant la bu baax a baax a baax ndax hmm. génn loo xam ne nit ñu ngi koy fayowaat di ay ndaanaan hmm. loolu sant yàlla la lu jot rek day yomb lu jot yàlla allo salaamaaleykum xaaral ma jël kii salaamaaleykum salaam sëñ sa naa def ça va na nga def baa yaa ngi ci jàmm ñu ngi sant yàlla bu baax alors noo tudd ak foo may woowee man maa ngi tudd Ndéla Diallo di wootee Thiès Diallo jéeri Ndéla maa ngi lay béggee maa ngi lay ziar bu baax sëñ bi ani baa yéen a ngi ci jàmm ñuy sant yàlla bu baax di ziar ma góor googu Lama Ndiaye. Lama wuyu lay ziar bu baax Ndéla. maa ngi lay ziar bu baax Ndiaye Diatta. waaw yaa ngi si jàmm. maa ngi sant yàlla di ziar waa groupe bi yëpp.